bu baaxee baax na waaw bu jotee rek jot na mooy heure bu baax bi émission bu baax bi fan lay am Dialaw TV donc mooy émission tànn sa bu la neex bi nga xamante ne Assane Dialaw moo leen koy defal donc fi ma nekk nii donc muy cantine bi nga xamante ne kii sama jigéen la donc sama sama sama lépp la donc faa mu waxtaan ak moom quoi maanaam affaire yi nan lay déroulé ak moom nan lay préparé tabaski bi donc soxna si sigil ma wax ak yow Seynabou <laughs> bu jaar naa la bu baax a baax. waaw Assane maay delloo ziar. maanaam ci loo nekk quoi yaa ngi cool yaa ngi am tawfeex. waaw ça va alhamdulilah ñoo ngi bu baax a baax. ok maa la fekk yaa ngi nekk ci ay euh, activité mhm. nekk ci ay activité di préparer di li nga xamante ne mooy tabaski bi. donc cest à da nga jëndi woon marchandise wala. waa damaa demoon Dakar nag jëndi marchandise pour préparer tabaski bi pour ñi ñi mën a am dàll yu rafet ak bagage yu rafet ak effet de toilette yi. ok uh-huh. maanaam c'est-à-dire marchandise bi. Mhm. mbaat cherul cherul dàll yeeg effet yi est-ce que cherul. na moom dàll yi moom cher na loo laal ñu ne dafa yokk ren loo laal cher na moom ok mhm. donc mu nekk loo xamante ne yéen yéen a ngi ciy yëngu saa su ne. donc si Dóor waar yow nga nekk femme boo xamante ne tu es brave. Mhm. Mm, n'empêche pas yaa ngi yor sa benn petit cantine. Mhm. mais yaa ngi siy daan sa doole donc est-ce que xalaat nga ne di nga ci génne maanaam marchandise bi quoi di nga ci génne. waaw marchandise bi moom dinañ si génne wax dëgg yàlla saa yu ñu jaayee moom alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax ndax dañu siy génne bu baax a baax wax fa dëgg yàlla. donc événement bi jub si na muy tabaski est-ce que clients yi ñu ngi ñëw. waa client yi moom ñoo ngi ñëw ndànk-ndànk mais xam nga fii moom ñaŋal la balaa ñuy mën a jënd rek mu des trois jours si la ñuy gën a jënd mais ñoo ngi ñëw ndànk-ndànk ok kon am ngeen yaakaar ne dina dox waa am nañu yaakaar ne incha allah bépp bagage bu ñu am daal dina jeex mhm, bu neexee yàlla suñu borom ok léegi man bëggoon naa xam yan jafe-jafe ngeen di jànkoonteele maanaam ci ci ci ci seen njaay mi ak yan problème ngeen di am ci ci ñu nekk fii quoi waa njaay rek la xaw am mooy boo demee Dakar jënd ji bagage ba ñëw dee fois sa bagage boo ko marqué wul keneen mën na ko wàccuwaal te bu boobaa bu la lool dalee rek pertement ngoy am. Mhm. loolu tamit ay jafe yoo xamante ne ñoom dañ koy jàkkoontele maanaam yëpp ay bagage mu jaxasoo wala keneen jël ko loolu pertement lay doon ci ñoom donc comme émission tànn sa bu la neex dafa nekk émission boo xamante ne. donc yow yaay tànn son bi la gën a neex wala bi la gën a marqué sa enfance ma may la ko comme délicace loolu la ñuy waxtaanee nii nii nii léegi man bu ma la laajoon ban son moo la gën a marqué sa enfance ban son nga may wax. <laughs> man son Youssou Ndour moo ma gën a neex bi mu naan liggéey. parce que dama ciy gis sama bopp bu baax ak ni may dóore waar nii. non man xam ne dóor dóorkatu waar nga liggéey kat nga moo tax. comme bone son boobu noonu gën na am marqué donc dama ci ànd ak yow bu baax a baax muy son Youssou Ndour bi mu naan liggéey nañ takku liggéey son boobu dama la koy may à travers Dialaw TV na ko xaar gars yi comme ni ma leen ko waxee rek bu leen fàtte di abonné da leen abonné Dialaw TV chaîne chaîne la Dialaw TV seen télé la Dialaw TV Dialaw TV wu Dialaw la yéen ko moom à partout dans le monde entier donc lan ngay wax waa Dialaw TV. ah di wax xale yi ñu gën a góor góorlu rek te topp liggéey parce que nit moom loo mën a am liggéey moo la ko may liggéey mooy maye yëpp balaa ñu siy xam dara nag ñu utoon benn somme bu ndaw commencé di di commerce di commerce sax ndax commerce sa moom dafa dox loo ci def moom yàlla suñu borom daf koy barkeel. Mhm. macha allah donc ñu ngi lay bëggee di la kontaanee bu baax a baax a baax Dialaw TV kontaane na la bëgg na la ok merci beaucoup muy.

donc comme ni ma leen ko waxee rek seen émission tànn sa bu la neex fi lay xewee saa su donc fi ma dugg ni, bu fi duggee damaa war a dugg bu fi duggul dama war a dugg ndax ki ma toogal nii ciseau bi moo damm ci ay loxam loolu moom ñëpp seede nañ ko ndax image am moom kenn du ko laajte ndax nekk na koo xamante ne formé na ay jeunes yu bare bare bare bare genn wàlla atelier yige ngay fii si la plupart mo moo leen moo leen formé donc muy wuyoo ci turu Zal man du ma ko laaj turam ndax xam ko ba pare donc ñu fekk mu nekk ci ay activités donc nekk ci préparation tabaski bi comme des na ay ay ay fan donc dama koy bàyyi rek mu présenté wu donc wax li nga xamante ne donc moom moom lay liggéeyee salaamaaleykum maam Jal ziar nañ waaleykum salaam wa rahmatulah sang bi maa ngi lay fay nuyoo. donc maam Jal ñu ngi la fekk yaa ngi nekk si activités yi quoi nan ngeen di euh, préparer tabaski bi. waaw ñun de préparation tabaski bi rek mooy lii rek comme ñaw yi. ah dinañ jéem a fexe ba ñëw benn ñëw du fi tardé quoi ñun daal noonu la ñuy doxee quoi waaw loolu mooy suñu préparation. waaw donc muy euh, lu am solo comme ni mu ko waxee dina fexe ba ay ñaw yi du des seen loxo donc man bi ma duggee dama gis entreprise quoi entreprise laa gis solo selon sama regard entreprise laa gis parce que gis naa atelier bi xumb na bare naa fa gis naa fa ay boy yu bare bare bare moom tamit mu ngi créer ay emploi donc maanaam c'est-à-dire boy nan nga leen di à travers ni ngay joobee ak ñoom. waaw ah, booy de ni ma leen di gere rek pour ñu mën a fexe assurer ñow yi ba ñëw yi mën a pare ndax booy yi wax dëgg yàlla ku ci nekk dama la dugal si atelier bi pour ñu mën a am métier pour ëllëg ndax wax dëgg yàlla amuñu lu ëpp tund jalaaw amuñu lu ëpp mbokk yi ba tax na daal fu ma nekk nii xale boo ko jàngalee mu am métier bu ëllëgee dina ko mën a jàppale jàppale ay parents am waaye ñun noonu la ñuy doon. ok am na solo moom fierté fii la. parce que je bien bari na ay boy yoo xamante ne yox nañu ay atelier fii moom moo leen formé donc booy yu mën a ñaw a ñaw a ñaw la forme donc bëggoon naa xam yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel. waaw ñu ne jafe-jafe yi ñuy jànkonteel bari na ndax yore atelier ku nekk xam na ne neexul ndax eh, liggéeyam tundu jala boo seetee wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn bopp lañ mais liggéey bi yaa saa yi jafe-jafe yi ñuy am avance lay doon parce que boo bañ a ñëw yu tardé doo am avance boo xam ne di nga ko mën a def ci ñëw yi te doo bëgg a ñëw yu tardé loolu tax fu mu nekk nii daal yenn saa moom jafe yooyu dinañ ko am. ñaareel ba yenn yi ci matériel yi paan yi matériel yu kii waaw yooyu yëpp fu ma yàq di dañuy am jafe-jafeem quoi. ok dafa may escalier boo xamante ne bëggoon naa ko laaj mais foog ma laaj ko maanaam c'est-à-dire machine yi fan lañ leen di réparer est am na ay réparateurs yoo xamante ne efficace nañ ci ci réparer machine waaw loolu nag euh, ci li ñu gën a am li ñu gën am problème ci loolu la book ndax wax dëgg yàlla tund jalaaw fi amul ki fi réparer daa yóbbu sa matériel nga yóbbu ko tëngeej am na ñoo xam ne nag dinañ fi ñëw réparé mais léeg ñu réparé la dañuy départ ak affaire machine yi de paanaat. man moom dama mosuma gis atelier boo xamante ne day réparer ay machines yu ñaw quoi sincèrement parler mosuma ko gis donc te loolu nekk na loo xamante ne comme développement daf fi am war na fi mën a am quoi donc euh, dañuy dem si tànn sa bu la neex ban son moo la gën a marqué wala ban moo la gën a neex. bu dee inde sax di dinañ ko jëli tegal la ko donc muy ban. waaw man moom fu ma yàq nii bi ma gën a ne mooy son séeréer saafara yi rek man son du ku maan. yéen a ko déggandoo Mansour Ndoukoumane muy ku mën a way ak Barxaan Ciss ñoom la def cible ñun ñoo xool boo xamante ne moo ci gën a neex rek après ñu tegal ko ko quoi donc lan ngay wax ak Dialaw TV. waaw waa Dialaw TV dama leen di gën a encouragé rek di leen wax ne fi ngeen teg seen tànk foofu la ah góorgóorlu la xam ne tund Dialaw ñoo ko mën a suqali lépp loo xam ne daal gars yi am nañ ko ci àll bi nañ jéem fexe góorgóorlu ba am ko fii ci tund Dialaw ndax amuñu lu ëpp tund Dialaw ah di leen gën a encouragé di leen ñaanal ah di leen wax ne gën leen a góorgóorlu te commencement nak yombul leen gëna goor goor lo xam tundu tund jalaaw moom mooy suñu tundu jalaaw dal ñoko mëna mën ñoko mëna jëmele ko wa assalamu jëmale kanam waaw asalaamaaleykum ngeen jëf kontaan naa bu baaxa baaxa ok merci beaucoup un grand que j'estime bien un grand bo xamantene donc il a créé beaucoup d'emplois à travers Jalaaw ay boy, yu bari yo xamantene mo moo leen formé ma teg ci sama bot loolu nek affaire bu am solo donc mo nek ni xeyna peut-être. chance la quoi ñu am ko donc fekko ko ci mënoon nañu ñëw fii duñ ko fi fekk donc tamit mu yombalal ñu ko def def ak ñun waxtaan bu neex macha allah donc yëf yi ni lay demee fii lay tàngee saa su nekk à travers Dialaw TV rang mu lay maas wala muy bàyyi. donc comme ni mo len koy waxe rek donc ben client lañ fekk ni ko xamantene donc musicien la rappeur la mais en même temps aussi tamit euh, tailleur la quoi ñaari métier la bolé muy art ak ñaw donc nii nga char naa la. waaye delloo ziar gayen. ba ya nga am jàmm bu baax a baax. sant yàlla lu beuri ok ñu ngi la fekk ci mercerie bi donc maanaam lan mo doon say tank quoi. wa à propos événement Thomas bi ñun tailleur ñebe. lan mooy say tànk maanaam ci mercerie bi. waaw dañoo ñëwoon pour jënd ay affaire ñuy def si ñaw bi parce que ñun milieu bi ñun ñëpp lépp la ñuy jouer quoi lépp la ñuy dund dañuy rab dañuy peinture dañuy ñaw parce que dañ naan góor waru yor benn métier. góor waru yor benn métier comme ni mu ko waxee donc mu yor ay métiers yu bari actuellement nangeen di préparer tabaski bi ak ñaw yi nan la fay demee. waa tabaski bi ñoo ngi koy préparer bu baax. te boo ci bëggee génne da ngay teel a waaw da ngay teel nekk sa bopp mën naa wax ne waaw affaire bi day naan. fi mu toll nii donc mu ngi ci kawam donc euh, comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi ko fekk ci biir euh, maanaam mestre bi muy préparé wu donc di waajal tabaski bi donc yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel. ñun moom bu dee xaalis moom duñ ko jooy moom bu dee xaalis rek waaw duñ ko jooy téer dañ koy am mercerie yi dañ koy am. mais problème bi mooy ndax affaire yi dina pere loolu rek ngay xalaat ku nekk dangay encaissé loo xamante ne nii waaw bu jour ba ku ñëw taxaw la après dangay sonn bay bëgg a dee loolu rek ngay xalaat nan laa war a libérer samay ñaw quoi mais doo xalaat ay xaalis affaire yooyu noonu ak son coono bi ngay am si affaire yi day dem ba lay mujj dépasé quoi imagine nga ñëw ba affaire yi des deux jours mu desal ay ñaw benn jigéen jóge fële ñëw waaw wax la lu la neex n'importe après yow yaay mujj muñ rek parce que doo topp sa xol yaa dugg si milieu bi te général dañuy xas rek ñun lu nekk lañ ñuy wax mooy loolu mais yàlla baax na saa saa ira comme ni ma ko waxee rek jigéen ñi moom moom seen ñay xas rek lay yor dañ la bàcc ba wala daw donc comme ñoom ñoo koy gérer rek donc loolu bu ñëwee rek après ñuy comprendre rek donc comme ni mu ko waxee donc ban son moo la gën a marqué si sa enfance donc comme. émission bi noonu lay duré déroulé dafa am concept mooy tànn sa bu la neex maanaam ban son moo la gën a marqué sa enfance wala guddi yi nga toll nii ban ban son moom moo la gën a kii quoi après ñu jàllale la ko à travers Dialaw TV mu ne doon sa dédicace ban la. ah ok la demee man moom benn idole la am te mooy sama bopp man sama bopp lay déglu moom man maay sama idole bopp amuma idole si Galsen. mais xamante ne marqué na la.

yow signalé gauche def ne del rek may ree biir nani bu ñu dajee keroog lay neex normal xalaat ma fay rek dee ku takkuru bi jamono def percé on bari jarul di sa tala tey ndeer yéen a gën a nooy bi faal salade mayonnaise damu mala bu ma cokaas parkaan ngay deer étudiant bu woote ban yàlla kenn la du ñaar évidemment damay takk si yéen takk si xel ana king ana chaise ana roi am string dem cil gënu la wër ñu ngi wër ndoxu naa que moom day ñëw bi moom ni muy dund rek loolu lay joué moom du tricher te man loolu laa gëm si góor. te nee na ak bees moom di tricher loolu la gëm si góor donc dañ la koy may à travers Dialaw TV ak bees ah na ngeen ma ko wëral bu baax bu ngeen gisee ak bees ngeen ngeen suruxalal ma ko ci biir donc ñu ñu ñu may ko ko quoi. moo wax lu bëri ko Marco Verri maa ñoom du sëri ba pour bu sëri ay boo yu sadib jaay drogue sa xori ko sa papa nangu koppar yi dama tëb lu bëri gën a jóg lu bëri ko lu bëri. non quelle innovation Dialaw TV moom mel noonu barki Rasulullah na ngeen ko xaar de te bu leen fàtte da leen abonné nag cloche bi xonxo bi da ngeen koy bës bu ko defee xam ñu waxtaanee ko quoi fi lay xewee rang. rek laa fi tal jamono ji fema sama liquide lépp moo ji da ngay jéem maa ngi quinzième boo may seet ay comédien la ko seetal jógay seet ebon fer laa laal pour du kaseen sa njëgu dundu weer laay taal pour su may reer ñoru leen tus da ngay jéem maa ngi quinzième boo may seet ay comédien la ko seetal jógay seet ebon fer laa laal pour du kaseen sa njëgu dundu weer laay taal pour su may reer ñoru leen tapette tu t'appelles Irisen Chappé saltel tapette tu t'appelles Irisen Gel di ko faxé tapette tu t'appelles Irisen saltel tapette

donc ki ko gérer donc mu ngi nii après dama koy bàyyi mu présenter wax salon bi fan la nek donc pour ñi nga xamantene ne ñoo fi wara a défar sen bop ba mu baax donc dañuy commencer lolu rek après ñu dugg ci question yi nga xamantene ne lañ wara dérouler soxna ci ziar na la. maa ngi lay delloo ziar kontaan naa ci ni ngeen def sama xol sedd na ci parce que li dafa neex dal ndax instant yi ñun li suñu liggéey la salon lañ yor depuis ñu ngi ci 2016 ba légui waaw yàlla ngi ci jàppale bu baax a baax salon bi nag mu ngi nii tey ngeen seet si ma kontaan naa ci lool salon bi sëñ Babacar si laa ko tuddee waaw comme dañu nekk en préparation tabaski donc te donc la plupart tabaski bi dañu am ay clients yu mhm. ndax actuellement nii clients yi ay ban jamono la ñuy commencé waaw clients yi instant yi ñu ngi ñëw par benn benn ndax instant yi cheveux yi yëpp nii ngay gis seen borom ñoo ko fi indi mais e, e, bu événement bi desee ay 4 jours ci la ñuy gën a suñu bop ndax ñepp dañuy def stress ñuy teg greffage teg parce que man maa ngi liggéey waa Darlin wax dëgg waa ñoom lay liggéeyal ñuy liggéey liggéey bu rafet nak dara ñaaw ci salon bi ku fi bëgg a mu ngi ci quai de bi salon bu rose la mu ngi nii salon af madame Ba ku dinañ la lu rafet waaw. yi bari na wul dal parce que tamit doole yamul am na ñoo xam ne bu ñëwee mën ñoo jënd importe bi 6000 ñu teg am ñoo xam ne dañuy sàjj coupe carré nga defal leen coupe carré yu rafet ku fi ñëw daal lan la defaral moom lu rafet macha allah waaw. donc comme ni mu ko waxee rek ku fi ñëw dinañ la defaral lu rafet a rafet donc salon bi wax na ko fii la nekk salon sëñ Babacar Sy donc chez sa donc comme ni mu ko waxee rek donc émission bi dafa baaxoo maanaam. benn concept boo xamante ne yow tànn sa bu la neex la quoi yow yaay tànn son bi nga xamante ne moo la gën a marqué sa enfance nga ne ma son bi la après ñu jàllale la ko à travers Dialaw TV. waaw kontaan naa ci yéen nag vraiment kontaan naa ci yéen parce que lii dafa neex lii moom dafa neex yàlla nañu yàlla jàppale clients yi comme ni ñu ñëwee woon daaw daaw dañoo liggéey ba yëkk suñu bopp te xam naa ren mooy mooy ëpp daal. yàlla nañu yàlla jàppale bu baax kontaan naa ci yéen man nag boo gisee son bi ma gën a bëgg sama àddina mooy Youssou Ndour bi nga xam ne danaan doomu aadama. teraanga doomu aadama moom lu la liggéey mayul dara du la ko may. son boobu mom daf may travail. donc comme dafa mel mom dor ko to war liggéey kan la donc son bobu donc dinañ la ko may à travers la TV bu ko defee nga dédicacer ko kula neex donc madame Ba donc yene ka deggando mom moko wax donc fi la xawé ci salon Serigne Babacar Sy donc dañ la koy jallal à travers la TV ñu ngi lay bëgg bu baax baax lan ngay wax wa Dialaw. kontaan ci yéen sant leen gërëm leen parce que tamit li yombol ngeen juk déplacer wu. ñëw seet sunu defal nu genre publicité te joxuñu leen dara kon loolu kontaan nañ bu baax a baax a baax. ba tey émission bi ni lay demee donc duñu bàyyi ruxu bu nekk dañ fay dugg di ko waxtaanee saa su ne donc li ma leen di wax rek à travers Dialaw TV dee leen abonné cloche dee leen ko laal bu ko defee rek ñu waxtaane ko nekk partout dans le monde télé bi foo ko jàppee rek foo duggee ci YouTube bi rek da nga koy am donc yu bari dafay xewee donc ñoo leen jox li nga xamante ne mooy li gën ci Dialaw TV rang mu lay maas

Checking it, checking, checking, bem muito checking. Mas que sulla passaram, mas que populi que waxee ñu dem bu jéxé rek jeex donc à travers Dialaw TV seen émission tan sa bu la neex à chaque fois ni lay démé donc tay euh, dama ko jagleel tailleur yi ak jigéen ñi nga xamanténi ñoy ñooy daan seen donc mu nekk euh, émission bo xamanténi à chaque fois ma leen koy défal man Assane Dialaw donc bu leen fàtte di abonné dama leen koy wax saa su ne donc ki ma toogal nii euh, maanaam ciseau bi moo damm ci loxo bi quoi maestro la bu la téye lay ñaw rek nga ne gongo. donc dama koy bàyyi mu présenté wu donc yaa ngi ko gis mu ngi nekk ci ay activité am nii ah sëñ bi ziar naa la. waaw delloo ziar way. ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di la kontaane. waaw ñu lay rëbbëggee baax a baax di delloo kontaan di ziar gi di la ko delloo. ok donc di la laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram di la wax nga présenté wu donc atelier bi nan la tudd ak fan nga ne. Euh, salaamaaleykum maa ngi leen di ziar waa Jalaw. di ziar tamit euh, waa Jalaw TV. di kontaan seen affaire yu baax a baax a baax a baax. seen liggéey bi affaire ba mu solo la te affaire bu am jëmmalu quoi di wax rek yàlla ko yàlla jëmmal waaw man la Seck Ndanane Couture dëkk fii Tubaab Jalaaw koñ bi ñu naan kel waaye maa ngi tudd Moustapha waaw ñu gën ma xamee nag ci Tafa waaw di laa yaakaar naa temps bi nag ku ne xam na ko nag ci métier bi. noonu la demee donc ñu ngi la fekk en préparation donc euh, tabaski bi di ci def presque ay ay une semaine moo ci des donc préparation bi nan ngeen koy waajalee quoi ak ambiance bi ak jigéen ñi nan ngeen koy dundee. waaw métti na méttiwul nag parce que actuellement nii nii nii nii ñu ngi dundee lu tar si enchaînement travail boo xamante ne nii pour rien que bëgg ku nekk satisfaire sa bopp si li xamante ne moom moom nga yëg-yëg dem jox ko sa tailleur na ko ñawal ma muy am li mu bëgg ak li mu sentir pour ñawal la ko léegi loolu yëpp moom ñu ngi jéem a fexe de tout pour def le mieux. ba borom ñëwee mën a fekk euh, li mu la jox mu yëg si boppam moo tax actuellement ñu ngi koy dund daal ñu ngi koy dund lu metti ok ban bëggoon na xam euh, maanaam engagement yi quoi. Mhm. ay ñaata ñaw à peu près donc est-ce que dina mat ay cent wala deux cent ñaw. donc ah, waaw ëpp da koy ëpp da ngay ay trois cent ñaw. ah oui ok ay ñëw quoi. Ah donc kon ay 300 ñëw c'est-à-dire boo ko encaissé am nga xaalis. waaw ah, am nga weccet. parce que du xaalis événement dafa metti uh-huh. charge yi bëri na bon yaa ngi nekk di fere looy lekk guddi gi ataaya bi xam nga ak ñi lay wéttali si nga ñëw di togg ay ay ak ay reer pour guddi bi xam nga yooyu yëpp ay charge yu metti la te yëpp si xaalis événement nga koy xaare te fa nga ko yaakaare oui. ok bëggoon naa xam nag exact yan jafe-jafe ngeen di jànkonte quoi. waaw jafe-jafe yi nag waaw jafe-jafe moom mooy euh, que mu tudd euh, suñu avancé avancé wu yi mooy fii moom la mooy suñu problème. client bi dalee indil yéreem xam nga de déposer la fi dem dula jox avance lijjantiwul loo koy ñaaw ak loo koy ñaawul xam nga te loolu dafa metti carrément carrément tam loolu ngay dem di jaayante dem sa biir sa messerie bu fekkee ne am nga borom messerie bu la comprendre di nga mëna liggéey ak bo bu ma passé nga fay ko à part mom euh sant yalla quoi loolu mo ñu gëna jaaxal si affaire mom ok mu ngi am solo mu ngi baax comme ni mulen leen ko waxee rek saa su ne gars yi ay dóorkatuwaar lañu dañuy ñafe day metti mais dañ koy ñàkkante à chaque fois dangay ñëw fekk dañuy xoolee ba borset donc tailleur nekk métier bu noble métier boo xamante ne donc ñooñ ñoo ñuy jox ñuy sol comme nag Papa coppet waxe woon rek bu tabaskee man sama tailleur moo may ñëwal donc bu tabaskee yow yaa may ñëwal donc lan ngay lan ban son moo la gën a moo la gën a marqué si sa enfance quoi ban son après ñu jàllal la ko ci à travers Dialaw TV seen bi joxee li gën ban la Sala yaay Nder ah. la woon waaw bi la waalo waalo rek waaye man son boobu noonu sama technicien di dinañ ko wër de wëral leen ma Saala yaay ndeer waaye wër leen ko ma di dimbali leen ma rek Saala yaay ndeer Saala yaay ndeer ak lan ngay waxaa Dialaw TV maa ngi leen kontaane waaye di leen jaajëfal lu baax a baax baax di leen wax rek waaw ca kanam ca kaw rek waaw amul bàyyi nañ ci nekk incha allah léppay baax macha allah bu jeexee jeex na bu baaxee rek ñu dem rang mu lay maas wala boobu acca moom mooy maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu ñëpp di rafetlu seen tawaay fii nii euh, man maay Mamo nekk fii si kel en face terrain de foot ah. ok di ziar ñëpp di bëgg ñëpp. ok Momo ñu ngi la fekk yaa ngi nekk ci ay ay nekk say activité donc bu ko daa xam nan ngeen di préparer tabaski bi. waaw waaw que instant moom tabaski jot na ba pare quoi xam nga rek lépp lu ñu mën def daal pour euh, satisfaire clientèle ñu ngi koy def quoi parce que ñu ngi veillé ba ay 6 heures du matin 7 heures. ok daal ñu ngi si préparé pour ñëpp kontaan. ñëpp jot seen ñëw en temps quoi. affaire donc c' est à dire kon engagement yi dafa mel ni bari na. waaw waaw engagement yi moom rek moom bari na quoi par rapport ak yeneen yi passé ren moom bari na trop. donc bëggoon naa xam aussi tamit donc ñu ngi gis yaa ngi paqueté ay affaire ñu ngi tegu nii kon ay ñaw am na yu jot a pare. waaw am na yu jot a pare boo xoolee yëpp si kaw pare na. ak yeneen nekk fooy suuf. mais ba léegi des na quoi som mais ñu ngi siy kii am nañ si yaakaar bu baax incha allah kon yàlla baax na am nañ ci yaakaar donc yan jafe-jafe ngeen di jànkonte ak <laughs> maanaam clients yi nga xamante ne dañuy ñëw fii mënu si ñàkk quoi parfois moom gars yi dañuy ñëw ñenn ñi dañuy ruube mooy loolu quoi yan jafe-jafe ngeen di jànkonte ak clients yi <laughs> waaw waaw mun naa wax du du jafe-jafe mhm. parce que métier moom mhm. surtout métier bu ñu nekk muy métier tailleur mhm. moog loolu ñu ànd quoi parce que ñëpp yemuñu quoi ñëpp yemuñu di ko ñun préparé nañu ko boy euh, bu ñu jàng ñëw lañ ko préparé la su ñu mën a wax ku nekk rek ak ni lay accueillir quoi parce que mooy suñu liggéey hmm. kon mun naa wax euh, parce que suñu liggéey la dañ parfois nag di si gis loolu neexul mais yow yaay muñ yaay yaay xam nooy gérer quoi hmm. waaw donc comme ni ma ko waxee rek émission bi dafa nekk émission boo xamante ne concept bi tànnal sa bu la neex la hmm. donc dama lay laaj ban son moo la gën a marqué sa enfance donc moom ngay tànn kili bi après ñu dawalal la ko à travers Dialaw TV may la ko dédicace ñun ñoo la koy may ban son moo la gën a marqué. waaw son bu ma gën a marqué depuis xale. Mhm, bu la neexee son bu la gën a marqué sa sa live aussi tamit dama la koy nangul. waaw mun naa wax euh, son kii nu mu tudd Youssou Ndour. Ah. mooy bu mu wax bëgg naa nga lettuma wala nga firma ko affaire yi to go. Jump a quick now, we're all to go. Es gibt diese Abneigung. Leg it up. Na noch ein Ding. Catch you in the. Na noch ein Ding. Catch you in the. You so in the. Damien le grand bar. parce que temps booy bi am na lu may lu may rafet lu bëri. <laughs> nee na soo ndur bi mu naan bëgg naa nga letti ma wala nga firi ma. donc euh, sama boobu dañ la koy may à travers Dialaw bu ko defee donc émission bi après dinañ ko monter dugal ko et tout donc bu ko defee rek donc yéen a ko moom quoi Dialaw TV seen Dialaw TV la waaw askan wi ñoo ko moom partout dans le monde donc fu nekk lay dem affaire yi mu noonu quoi donc lan ngeen lan ngay wax waa Dialaw TV. waaw di rafet lu seen liggéey bu baax di ko rafet rafetlu di gis naa seen liggéey li ngeen def parce que dama koy suivre. dama koy suivre par YouTube wala si seen ci lii yëpp dama koy suivre bu baax liggéey parce que Jalaaw moom yaatu na ko affaire yaatu na te aussi yéen a ngi koy yaatal parce que gis naa li ngeen defoon si tefes gi. affaire yu bëri maa ngi koy gis quoi di ko rafetlu bu baax di kontaan seen teewaay si encore bu baax di leen jaajëfal daal. merci beaucoup. make, make, Dialaw TV donc émission bi kan moo leen koy defal seen xarit seen fans Assane Dialaw moo koy def saa su ne donc di leen wax ne da leen ñu bàyyi xel bu baax a baax fu waay soxlaa rek wala boo bëggee rek mën nga ñu contacter donc muy publicité sponsor yi ñëw leen sponsoriser émission bi seen normal donc damay bëggee bu baax a baax ñi ki nga xamante ne moo ma solol sama poos moo ma solol <laughs> sama poos moo ma solol donc di bëggee gars yi bu baax a baax techniciens yi nga xamante ne ñoo nekk ci gannaaw donc di def liguey bu ama ama ama am solo ba ci directeur technique beeg ki nga xamantene ne gérer programme yek donc di bëggee wa Jalaaw gep di bëgg sunu wa kër nak sama madame diko ko bu baax a baax di bëgg kullu kuy bëgg Assane Jalaaw donc l'émission tire à sa fin xamna dama len di jox dig daje ba beneen numéro ci émission tan sa bu la neex à travers Jalaaw TV rang mu mas